y no caí kaay waay wuy géwél yi Papa Diagne gaal dem na géej Ratawur Mbaye sumal mbal ma yumbe sas Ratawur Mbaye sumal mbal ma yumbe ah waay waay mbër day saf xorom waay mbër day saf xorom bëri bay ree xoru géej danaa baax rek ñu bàyyi ki nga xam ne mooy jeex jàmm mu ubbi kàddu gi bismillah bismillah asalaamaaleykum bismillah allazi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa laa fis samaa'i wa huwa samii'un aliimun aziim maa ngi nuyu ñu toog ci saal bi yëpp sama mbokk journaliste yi waaw assistant bi nekk ci salle bi yëpp maa leen di nuyu di nuyu journaliste yi nekk bi di nuyu Feugeula di nuyu waa ñaartal gi ma jógee di nuyu ñëpp ñu may siibu tuuti maa ngi leen di bëggee di ñaanal tamit sama ménagère Mamadou Diouf yàlla yërëm te yàlla xaare ko àjjana te yàlla boole ko malaaka yërmande te yàlla oyofal suuf ci kawam barkeb Seydina Mohamed Modou Anta fëgg Modou Anta fëgg jure nga bëgg fëgg di nga jure de taalibi sëñ Saliou daa may dégg di nga jure far force doolay maam mbër laa la jàppe woon mais bis na nga tey maa lay bëgg a def comédien sa napp bi géej ga la yam de yaa ngi ci arène bi fii amul nappe de sarax ndongo añ baa mu siiw ak dooleem bisimilah rahmaani rahim jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama Sidi Ibrahima Fall auzu billaahi mina sheytaani rajiim bisimilah rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli suñu ñaari waajur di sant suñu ñaari waajur ñu yàgg fi lool di ñaanal kullu waajur di sant suñu sëriñ sëriñ Cheikh Roxaye Fall moom borom diggal xalifa sëñ Cheikh Fall Baye góor di yàgg fi lool di ñaanal kullu Baye Fall ci màggalu Sam Fall bi yal na ñaan yëpp nangu Sénégal suñu réew yal na suñu borom def jàmm ndax bu amee jàmm ñun ñëpp la amal jàmm bu réew mu amul jàmm kenn du am jàmm kon nañ ñaan jàmm yàgg fi di ñaanal kilifa diine yëpp. di ñaanal ñi tëdd si hôpital yi ñi ne si kaso yi waaw di ñaanal ñi seen loxo jotul ginnaaw suñu borom taw fexeel leen di nuyu sama adversaire muy jeex jàmm di ko jaare suñu papa ji Mor Diouf mu doon ku baax waaw muy ménager boo xam ne njaboote na ñëpp macha allah boo taxee doo xam ne kii lay ménager wala kii lay ménager di ko ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko suñu borom defal aljana firdawsi waaw di nuyu suñu papa yi fi teew yëpp ak suñu yaay yi. di nuyu force de l'ordre bi tey wax ne lii yëpp bu rafetee yàlla ñoo ma tax yéen ndax ay jàmbaar lañ ay garmi lañ ñëpp a ñu toog ci siège ñoom toujours au debout la ne di sàkku rek suñu kaaraange kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di nuyu promoteur bi muy Iliman Lo ak équipe am di nuyu suma manager Pape Diagne mu doon nit koo xam ne doom la ñu jàppee di nuyu champion yi fi toog yëpp kenn rawul kenn yëfi góorgóorlu la rek ñun ñëpp ay moroom lañ góorgóorlu la rek ku góorgóorlu yegg fa nga war a yegg waa di wax na nag mbër góor gu dëgër gaay nii séeri Faris bàyyi faramu ndaw xeeru géej bi bu wow koŋ bi nga dajee yow tàppet nga dangay laam-laame xam nga danga doon wër lu nooy ba am si boo daal boo am na mu demee mais gisatoo bu nooy suñu borom dalaa nattu barki sëñ Cheikh Fall da nga may woo su jure man ab lébu nga ne ma yow daxal jure man yow daxal jure man xanaa ma dëkk waa dégg eh, déglu ma balaa ma laa doo mbéj xanaa xamula man ma dëkk yëpp dañoo jure adduna ñoo fi dàq jure ñun lébu loolu yëgula ko xam naa loolu wala xamula ko adduna ñun lébu yi ñoo si dàq jure ma wax la ko tey baa ko xamal du ma ñëw la laam-laamee yow de pour ñëw naan ay benn ñaar ma doomi bàjjen lam laa jàppee di la ndulli di la ndulli di la luy xew fëgg yow wone la lay ndulle xamoo ku ne ndulle jeex la de ku xew ku yeewu bi maa ngi nii mba war a ma yónni yaagamti moom amul lu may laab laamee ak yow nag li may naxante ak yow bëgg a jur far force bañ la neex la da nga juree daw ma jotaa maa nuyu waa waa Grand Dakar bi yëpp xam nga di nuyu waa États-Unis sama gars yi nekk noonu di nuyu waa Touba waa Alam waa Daaru Salaam sama mbokki bawol bawol yëpp maa leen di fëgg man amul ma yow suur ba jot ma lu may wax ak yow lu may wax doomu fëgg fëgg lu yi leen waay ni fëgg le neuf le neuf di nga mbéj yow pare na yow yàlla dara nattu yow xamula lii xew ba léegi yow daa xamul lii xew ba léegi moo wax la waaw du lépp la ñu wax sax mais dinañ la xamal ne lébu yi fi mu toll nii guddi yi toll nii dañ toll suñuy guddi te dañ soxla xaw ma ndax yaa ma dégg wala déggu la Ilimane kii war ñoo gën a gore combat bi incha allahu rabbi 30 bloc lañ ci soxla autorité yi kii fi jigéen léegi muy Kéba Kanté waaw kooku sunu borom moo ma doon videur am doon suma grand doon suma lépp moom li muy def da koy def loolu à la mais dama koy yóbbante si sunu papa muy Cheikh Kanté na ma jàppale man jàppale jéey jàng mi ku si ne mu jëndal ñu ay bologu billet waa ndax bés bu taaroo. bés bi daa war a taaru ndax bésu kilifa dafa war a taaru dafa war a neex ndax ñun dañ di ay ndaw yoo xam ne suñu loxo jotul ginnaaw dañuy débrouiller nii rek lu ñuy fay si làmb lañ koy delloowaat dolliwaat si leneen yee te di wax jeex jeex dinaa jure de xaw ma nga xam nga xaw ma nga ñàkk a xam ne dinaa jure te yow sa bëre sa sax yow bëre baal laa bëre ay kottante yooyu noonu ña la daax a kottaa fa nekk ña gën a ënn équipe kor ña la kotta gën laa ënn gën laa dof ñoo fa nekk yaa maa dégg te ba laa jàllee nga dem uti ji doole fëgg sept combat def benn cote laaj daan sept combat sept victoire laa def sept victoire ngay wër eh dama bëgg nga déglu ma laa def gis nga fëgg déglu fii ma wax yow yaa ma déglu la nooy laa doon wër la lijjanti see nooy la daan lii ba dëgër këj bi la góor ga majeur gi dama bëgg nga déglu ma nekk la ndit yaa ngee door a am sa morom foogi sa dëgër soo la koy wax damaa bëgg nga jëfe ko man dara te laam laam meew laam laam meew ma ak yow dara foog ñu ma bëree daan yàgg naa wër di leen di bëgg a ñoom nga def naa fa mu gën a gaaw jikkay la bëre meer dama gaaw a jure kaay da ko neex bëgg a jure kaa jure foog ma daw ma dawuma yotaa waa États-Unis wës jàmbaar sama papa Ibrahima maa ngi koy teg ci loxo wës jàmbaar mboor kullu mboor mboor bu nekk foofu noonu nan maa ngi leen di woo ñu jàpp ci bu baax baax a baax waa ñaari Grand maa ngi leen di bu baax a baax a baax waaw maa ngi woo sama yaay xayda xayda Seck moom gis nañu ko day jàpp bu baax a baax a baax waaw ñu ngi koy tàllal loxo mu jëndal ñu ay bolok taxaw ñu ko ndaw yi ñu dem esaat xam nga sama papa président moom tamit naka noonu day jàpp suñu combat yàgg na jàpp suñu combat na gën a jàpp xam nga ndaw yi mën a dem esaat suñu grand idéval borom iPhone yi borom Maroc moom tamit ñu ngi koy woo ci bi comme ni mu daan def nay jëlee xam nga sama grand Mor Faye taxi bagage maa ngi koy nuyu sama yaay nday ulay borom añu neex yi borom restaurant Serigne Fall maa ngi koy nuyu di ko woo ci combat bi moom tamit Serigne Mbacke promoteur ab Ousseynou Laay promoteur comme ni ma leen ko waxoon rek maa ngi leen di sas bolo yi ci yéen laa ko teg ku lu kuy mbawar mbawar xam nga nan nan teg seen i loxo lépp ngeen jot ko ci man ndaw a dem euh, bi yëpp seer kaañi seer kaañi bàcc kaañi ñoo tamit may jàppale bu baax a baax a baax xam nga waa Pikine boo yëpp mafia bi su ma limee rek damay juum mbawar mbawar yi nekk Pikine yëpp maa ngi leen di bëggee was jàmbaar xam nga mbay caam saaxo ara fas bu ñu mel ne xam nga waa Grand Yoff sama grand Iba Thiam maa ngi koy woo ci combat bi mu jàpp ci bu baax a baax sama grand ji bi ñaari tali maa ngi koy woo moom tamit Iba Ngore xam nga maa ma jooyee mu yaata bu ñu mel ne euh, grand ji bi grand ji bi maa ngi koy woo moom bu ñu ne maa ma jooyee day jàpp sama combat xam nga maam Cheikh Egran moom tamit day jàpp sama combat baax a baax maa ngi lay woo na la wax sa sa mi ngi ñëw monsieur le maire Assane Seck yow tamit ñu ngi lay tàllal loxo Ba Ibrahima Diop États-Unis xam waa sewo yi nekk États-Unis yëpp maa ngi leen woo ñu combat bi xam nga euh, waa Mbour maa ngi leen woo ñoom tamit ku ci mel ñoom Mbaye xam nga waa maa ngi woo kuy takk rek maa ngi lay woo loxo wus jàmbaar ci sa loxo laa ko teg xam nga maa ngi koy bégg moom tamit di ko wax na ko xam nga li muy taxawoo doomu Mbawoor di rafet na macha allah sëriñ bu